Sine Saloum nag c'est la région de Kaolack et la région de Fatick ñu ni nag bala ñuy tàmbali liggéey bi euh, nga xam ne ci liggéey boobu am nañ ci accompagnement FAO nañ dajale acteurs yi nga xam ni ñoo seq liggéey bi ngir ñu waxtaane ko xool ban stratégie lañuy mettre en place kenn ku ci nekk lan mooy sa waar ci liggéey boobu ba ñu juboo si stratégie bi mën a commencer liggéey bi alors li ñu si jublu nag mooy fexe ba zone bi nga xam ne mooy Kaolack ak Fatick nga xam ne zone la boo xam ne nii que potentiel bi mu am en matière d'élevage potentiel bu am solo la mais potentiel boobu tant que xeexuñu weñ woowu euh, ñun ministère de l'élevage jàpp nañ ni élevage ni mu bëgg mu ñaŋe ci zone Kaolack ak Fatick euh, du ñu ñaŋe loolu moo tax nag ñu sumb sumb liggéey boobu tey ànd ci acteurs yëpp pour xool nan la fexe ba euh, maanaam prévenir euh, fogu ci euh, mouche bobu mais aussi bu mouche bobu am ki aussi nan lañu ñu def pour xex ak mom donc lool nak dafa laaj aussi Watgal yego ñu yego ci nan la en tout cas euh euh tabaxé suñu stratégie d'intervention donc ak aussi agent yi outil lañu wara ñu am pour xex bobu aussi ñu mën ko ñu mën ko xex ci ni nga xam ni nii que mooy moy moy ni mu gënee. pour mën a développer l'élevage, beaucoup de ci qui koy gàllankoor fait feebar nga xam ngi donc suñu ko njort nañ ni qui lu élevage mu jëm ci productivité wu ci jëm ci lu walu yàpp wala ci walu wala ci li nga aussi ay la utiliser ci ay euh, ay ak ay ak ay njort nañ dina gëna ñong ci région Kaolack ak région Fatick. taxaway bu am solo lañuy xaar ci ñom ndax euh, ñom ñoy xex ak euh, wëñ woowu euh, loolu it mo waral sax li gëna tax lancement bi mais c'est la formation moy fexé bañu outiller len manam jox len ay jumtuwaay ka yi nga xam moy mëna tax manam xex boobu mëna nek xex bu efficace mais mu nek xex bo xamni xex bu coordonné lay nek lu ñuy coordonné lay nek mais aussi xex bo xamni du am njeexital maanaam bu baaxul ci wàllu ci wàllu alam bi. éleveurs yi nga xam ne participer nañu ci atelier bi dañoo bëgg ñoom ñoo xam ne mënuñu indi éleveurs yëpp mënuñu indi aussi lu ëpp li ñu fi indi te li ñu leen fi indee it mooy nañu gis dëgg xam aussi lan moo xew ak ñooñu lu ñu bëgg a def am na nag ay euh, sources euh, technique wala yu scientifique loolu ñi ko war a def ñoom danañu ko def mais rôle éleveurs yi mooy joxe information sensibilisation pour que éleveurs yëpp xam programme bi mais aussi ñu xam problème bi ñu am ndax euh, am na ci loo xam ne li comme ñu ñoo dund ak jur gi te ñu nekk ay acteurs te suñu njàng soriwul aussi dañoo war a xam suñu rôle xam suñu cër xam suñu rôle nag mooy ñun ñoo représenter les éleveurs lepp lo xamné ne li gis nañu ko lu melni war nañu jema def tout pour que éleveur yépp xam ko xam nañu ko wara moyto xam nañu ko wara taxawé parce que mouche bob moy veñ bi bu xese be laal lu melne nak da fay feeñ ci yaramam nga constater aussi tamit pour nga fekke ba mu duuf day jafe wala nga fekke bi mu nekk forme wala mu joxe production ba nga xam ne moom la doon joxe te bu boobaa aussi nga fekke bi mu ci dillu ci ay jafe-jafe lay doon kon négligence ba maladie dugg ci jur gi dafa war a nekk aussi suñu cër ñun ñu jóg taxaw jàkkaarloo ak loolu nga xam ne ay problème la eh, technicien yi ñu leen di féliciter

yokk xeex bi pousse ko mu ñëw fii si Saalum fii nga xam ne tamit muslim ngi fii dem ba ca Casamance loolu daal mooy suñu lëkkaloo bu ñu fi ñëwee tey ànd ak ñëpp pour jéem xool ni ñuy tëggee benn programme nu ñuy euh, jokkalee suñuy suñuy suñu jumtukaay ba xeex bi gën a yomb oyof te bañ a yàq aussi alam bi parce que wax nañ ko fi tamit loolu tamit jar lu jar bàyyi xel.